Yenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf di pouponnière bu Ndella Madior Diouf bi la fa xew du jàmm pouponnière de l'horreur la ko libération tudde mi ngi ñuy wax ne ba léegi pouponnière baa ngay dox amuti këyit amul autorisation anam ya muy doxee daraa ci leerul liir yi ñu fa yóbbit kenn tanewula ci yenn condition lañ leen fa li ñu ne dafa ñaari liir yu faatu ci pouponnière ba ndax ñàkk toppatoo libération ne nañu looleet lu am la am na benn femme bu ko da koo dénkoon Diouf nee ambiance la ci jublu waaye loolee yéen bi mi ngi ñuy wax ne enquêteurs gëmuñu ko li ñu jàpp mooy ay tappale ak i njubla ngir wut ci xaalis bébé yamu yoroon ca pouponnière ba libération nee nañu service yu ministère de la femme dem nañu démb jëli leen l'observateur nañu ñeen fukki liir ak juróom-ñett ñoo newoon ca pouponnière ba ñoom ñëpp la jëli démb ñii ñu yóbbu leen Gaspard Camara ña des ñu yóbbu leen ci Albert Royer Ndella Madior ma Maître Florence Mendy di de mœurs jamono ji moom Ndella Madior Diouf l'observateur nee na ñu ma nga ñu garde à vue ñi doon liggéey ca pouponnière ba ak parents yi moom liir ya fa nekkoon ñoom it woolu nañu leen ci sûreté urbaine ngirub enquête enquête dina bind ci xëta njëkk ne Ndella Madior Diouf mi ngi ci guuta homicide involontaire lise ko ne nañu bokk na ci li ñu ko jàppe ndax am na ñaari liir yu faatu ci pouponnière boobu di kër Yërmande moom benn waay la bu am fanweeri at ak juróom maanaam 35 ans yore benn internat ca jaxaay moom waa ji ma nga ca loxo yoon viol lañu koy tuumaal ndax nee nañu dafa am lu toll ci juróom-ñeenti xale yu jigéen yu mu tëddee ci internat ba ca néegam la leen daan dugal diw leen saafara yegg ci seen kaw ba noppi forcé leen ñu jël ay contraception ngir ñu baña a biir biir yéenekaay yi tey politique bari na ci ñu bari ci ñoom xëy nañu ak ñoon ci Amadou Ba candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi waa këram yi daje woon démb ngir doon ko national bi na ne Alliance pour la République di APR investir nañu Amadou Ba président Macky Sall ma teewoon ndajam ay kàddum ci xët mu njëkk journal bi muy wax ne ndam li mi ngi ci suñu kanam ndax xal nañu yoon yi ba mu leer Moustapha Niass borom AFP a waa AFP takkal nañu Amadou Ba jaaj yi démb journal Le Témoin bind ne waa APR investi nañu seen waaj Amadou Ba ci anam wu rëy dans la ferveur direct ñu su ko mukk ferveur kay amu ci investi nañu ko démb waaye ci sobriété ci lañu ko investir congrès d'investiture bu APR bi woon démb ak la fa xew journal bés bi la jour xëy na ci dellu si ak ñun mi ngi ñuy xamal ne amadu Ba nee na bu falo ci continuité ca lay dox muy diggam ak Benno Bokk Yaakaar di diggam ak PSE di plan Sénégal émergent Macky Sall xamle fa ne nguur koy joxe liggéey naa ci réew mi lu rëy bilan exceptionnel waaye nag bilan bi manees na koo gën a ñoŋal yéenekaay bi mi ngi ñuy yegget kàdduy Mame Mbaye yu mu wax mu di Mame Mbaye Niang du bokk ci ñuy soutenir Amadou Ba du ko jàppale tey du ko jàppale ëllëg point actu gis ne Mame mbay Niang bàyyi nañ ko ci lu ko neex yamu rekk ci doon ab électron libre waaye ab électron trop libre Amadou Ba bu ñu ko éliminer ci premier tour bi du ma bett Aly Ngouille Ndiaye moo ko wax ci waxtaan yu mu xëy def ak wàllu observateur ca waxtaan wa it nga fay indi ay tontu ci li ko Diop Diama di maître Moussa Diop tuumal Aly Ngouille Ndiaye nee na du taxaw di sosal ay nit mooy tax kenn di gañe lenn